ci laa wooyee beneen xarit sama beneen xarit Mouhamed Cissé ñun ñaa ay doom ay doom nday la jaar na boo ko woo dañ dem man boo ma gis image ba gis image ba gis du ma ko wax. image bi neexuma du ma ko wax. mbokku internet Senenews TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñu ngi ci euh, diwaanu Thiaroye dañ fi ñëwoon euh, pour jël témoignage euh, ñi nga xam ne nag ñooy jege ñaale dem si yàlla xam naa balaa ñuy daal di wax ci nit ki yaakaar naa ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy mbokk mi ñoo ñu ko gën a xam. sëñ bi maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax te di leen masaw ci li nga xam ne nag mooy seen mbokk bi wàññeeku tur bi ak sant bi. waaw maa ngi lay fayoo tamit maa ngi tudd Amadou Cissé. Amadou lan nga ñu mën a euh, dénk comme témoignage par rapport ak ki nga xam ne nag moom mooy Omar Deme si yàlla. bon témoignage bi moom leen kese la mooy li ñu a xam mooy que avant def na quatre jours quatre jours si ginnaaw moom dañuy faral fii à chaque fois bu ñu ndogu ñun ñëpp fii lay ndogu see moom fii mu nekkoon néegam mais def na trois mois si la takk soxna par la suite si la déménagé fee si ginnaaw bi loolu amee bu weer koor jotee ñun ñëpp fi lay toog di ndogu mooy quatre jour yi ma wax noonu si ginnaw bon benn jour ñëw na toog. loolu ñewul sax autant pour moi ñu woko ko soxna sam dañ laaj soxna ci ana diw ana Omar mu ñu Omar mi ngi nekk ba ñu no xanaa ndogu sul mu na xaar mu woko ñu woko ba sonu téléphone bi sonné rek mais par la suite dañ ko defal ndogu yobul ko mu ndogu ba sour mu reer jot tamit mu ñew reer ñu tegat ci 2 jours moy ba ci 3e jour moy démb aussi biñ ñewé pour wara taxawal julli taxaw julli laaj ko ana Omar mu na ah Omar da gisaguma ko ñoo ko sama ben frère bi woko ko téléphone mais muy sonné rek bi mu sonee ba pare ñu ne garaaw nañ ndogu comme bee passé yóbbuloon nañ ko ndogu ñu ne bu ñu paree nañ ko yóbbulaat ndogu biñ ko paree ñu yóbbul ko ndogu xale bi ko dem dafa fëgg bunt bi ba sonn kenn tijjiwul mu ñëw ne ah fëgg naa rek mais kenn tijjiwul mais par la suite bi mu ñëwee bi bi mu ñëwee loolu ñu ne kon xam naa da ngaa jaawale bunt bi léegi soxnaam si la jëyee jël mburu bi dem yóbbu bi mu demee fekk booy bi suspendre ko quoi noonu daal la demee par la suite si la ñëwee fii yuuxu man sama collègue yi ñu ñoo dem daal fekkoo ak kii bu dooy war daal. waaw affaire yi daal mu demee comme ni ko sama mag yi waxee rek man dëgguma fi mais dañ maa jël boole ma seen bopp fii laay ndogoo ak ñoom chaque jour. fii laay ndogoo defee lépp chaque jour ñooy doo fii jul ñëpp dañuy lal suñu suñu siyaare fii nga lal julli démb ba baki démb baki démb da nga dañu lal siyaare julli mu xaw a mu xaw a mu xaw a tardé. mu xaw a tardé mu xaw a tardé gars yi woo ko téléphone après ñëwul quoi ba mu ñëwlee gars yi woo ko ñu ne mënul dara beneen veille bi tamit ñu beneen journée bi ñu lal fii di ziare julli ñu dem bay bay waagi taxawal julli mu ñëw bu ñu jullee pare mooy def ñaan quoi bu ñu julee kii mooy jiite ah, man su ma li xamee kii jiite suñu paree ñu def ñaan moom mooy def ñaan ñu ngi ko forcé ñaan bi ba sonn mais mais ñaanul woon quoi mujj maa jël ñaan gi ñaan ah, di day am ba pare bu affaire jàllee ngay doog a xam ni am na loo xamante ni mooy loolu waaw noonu loolu daal loo demee ñu toog démb toog ndogu jabar ji sax moo toog ndogu jox ñu lekk ba ma koy tooñ ñun topp ñu sama jabar topp ñu jabaru aarama daaba topp ñu jabaru kee yow la ñuy topp yow yaa fi nekk di ko tooñ noonu waaw ba muy reetaan man daal si laa génnee dem dugg sama néeg di préparer pour génn soxna si daw soxna si daw ñëw sama néeg toog sama lal man tamit sama xel dem na daal xaw ma xaw ma fu may taxaw ndax ni mu ñëwee toog sama kaw lal ne ma damal xool Omar takk na buum genre yooyu noonu waaw ci laa génnee daw xaw ma fu may taxaw daal ma daw ma dem bay dem ci kër gi ma ne xaaral ma woo kenn ànd ak mu gën a wóor ci laa wooyee beneen xarit sama beneen xarit Mouhamed ñu ñaa ay doom ay doom nday la jaara boo ko woo dañ dem man boo ma demee yëg dama gis image bi ma gis image ko wax image bi neexuma du ma ko wax waaw du ma wax ba pare dafa génnaat ma génnaat yuuxu daal yuuxu daal laa def naa ko après daa xawatuma fu ma nekk waaw loolu daal laa xam naa ko mun naa ko cee wax. d'accord Omar dafa nek ben xalé bi nga xamne wax xalé bu gëm bopam la il est très intelligent sha allah jang na bam bagam technique li maam lay fi lamay bëgg nek ku gëm bopam tamit tu comprends bon heure buñ togué tamit waxam nak bëriwul en fait waxam bëriwul en plus nit ku dëggu la ñun loolu lañ xam ci mom voilà ñun da loolu lañ xam ci mom vraiment. man bok mo ci famille bi sax mais dafa dem ba ma jigi gi dafa mais dama bok ci famille bi waaw ah, ñoo doon fanaan def lepp ci yaay bi ñoo bokkoon néeg fi ñuy fanaan dañuy bàyyi suñu kër dem néegam bàyyi sama kër nekk mu dëkk fa di fanaan ak moom waaw te xam si moom ku baax la daal ku baax la ku dëggu la waaw te comme engagement la aussi tamit waaw te borom xol bu rafet la aussi tamit